mooy ki nga xam ne moom lañ teg waaw ci kanam famille bi mu yore kaddu waaw famille bi lépp lu ñuy wax moo leen koy waxal lépp loo xam ne ñu ngi koy kii rek jottali moom moo koy jottali koo koy naqib ba bu dee jamono mooy nuqaba ñi nga xam ne ñoom la yonent bi sallallahu alayhi defoon porte parole ya ñuy jottali waaw seen i xibaaru famille di dox seen digganteeg yonentu sallallahu alayhi wasallam ci lépp loo xew seen famille ñoo ñooy nuqabaaw wan nu jobaaw ak ñu tedd tedd ña ñi nga xam ne yàlla jagleel loolu la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu nekk ay nit ñu tedd ñu foor kawe loolu ñoo ñooy nu jobaaw yi danañ ko jàng wal xawaari yi ak ñi doon dimbale yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam xawaari yi mooy naasir mooy ki nga xam ne mooy dimbale waa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon nay xawaari yoona ñoo xam ñoo ko doon dimbale fees lool ci dimbale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla saa waxoon na man ansaari ilallah ana ñu may dimbale ñu ànd jëm ci yàlla xawaari yoona yi ne ndax nu ansaaru laay ñun ñun ñooy dimbale yàlla xawaari yoona yi mooy lan saare ñu doon dimbale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñi ca feesoon rek lañ namu wal xudaatu ak attekat ya attekat yi nga xam ne nii waa ñu doon atte ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa man ak ñi nga xam ne yuqtamu danañ dogu bil jinaani ci aljana yelhum ñeel leen saxaaba yi nga xam ne yonentu dig na leen aljana nga xam ne man ñoo dogu na aljana lañ jëm ndax yonentoo ko wax sallallahu alayhi wa sallam ñooñu dana leen jàng wa man walla walla ak ña méngoo na suuq marché fi zamani si jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ñoom la yonentu faroon ca marché ba ñuy xool doxalinu marché ba prix waa normal na wala normalul ndax naxante am na fa am amu foor ndax ñuy jaay xam nañ seen diine wala xamuñ seen diine waa toppatoo biru marché ba kooku ñooñu dañ leen jàng sallallahu alayhi wa sallam wala umanaaw ak ñu yonentu wóolu woon sallallahu alayhi wa sallam wa shu'ara ak waykat yi nga xam ne ñu doon woyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne bu waykati arab yi ñëwee délégation yoo xam ne ay woy la ñuy def ñooñu ne way tontu leen ndax daal arab moom lay baaxam mooy nañ ko di rek la lay tonte boo ñëwee way ñoom ñu tontu la ci way waa nga ñëw wisar bind ñu tontu la ci wisar yonentu sallallahu alayhi wa sallam mënu woon way waaye dafa mën ay waykat yu ko waroon yoo xam ne képp ko andi way rek ñu tontu la tontu bu gën a fasaale nga andi sallallahu waa ñu sooraaw yi waaye képp ku xas yonentu sallallahu ñu way ñoom it la hmm, dégg nga wal kutaab ak bindkat ya yonentu sallallahu alayhi wa sallam mënu woon bind waaye am nañu ko doon bindal loolu waral coow yi nga xam ne nii coow yaa ngi koy indi te lu waaye mën a a mën a coow war faa mën a ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee bind te moom demee bay génn àdduna def na andi leen ma téere boo xam ne ak ma bindal leen loo xam ne dégg nga waaw du ngeen du ngeen sama gannaaw fekk yéen ci jàpp ñu mënul bind ba pare ne ma bindal kon kay man na bind caaxaan rek yonentu ba mu mënutee bind bu ne ma bindal mooy ma santaane ñu bindal leen waaye bu bu ko santaane mu ko bind nam laan bind leen mooy santaane ñu bind keroog boo ñëwoon téere bi ñëwoon it noonu lay bindalee nit ñi rek de waaw sallallahu alayhi wa waaye waxoon ne ma bindal leen ko ak sama loxo kon coo yooyu coo yu xamul bopp xamul genn la yonentu xamul jamaa ak ñu mokkaloon alquran alquran fi miadi ci mën a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mokkal ñi nga xam ne dajale woon nañ alquran mokkal ko ñooñu lay dana leen tudd ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu mokkaloon alquran bëriwul woon ndax sahaaba yi ñu ngi woon ci xareya nekk ci luy dëgëral lislaam ak lu koy taxawal waaw ba ñu bëri ci ñoom mokkaluñu alquran ña ko mokkaloon nag ci jamonoom dana leen tudd wa rusuli ak yonent ya ilal muluki jëm ci buur ya leetar yi noonu yonent bi bind buur ya ña ko yore woon ñooñu dana leen tudd wa man kaan ak ka nekkoon yu di xëkkoo di reeloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne nii moo daan reeloo yonent bi waaw sallallahu alayhi wa sallam ñooñu kooku dana ko tudd taala kawe naa la yàlla nekk si moom moo moo wala boog salla yàlla doole xewal laa yàlla taala kawe na alay ci moom moo salamat doole ko musal yàlla ko yàlla doole xewal ak musal ñii ñëpp dana leen jàngale ci bunt bi mu yëkkee ci nuqabaaw yi xam ngeen ne keroog bayaatul aqaba asaniya ba yonent bi jaayanteeg waa Medina dafa jël ay sang ne leen yéen laa doxalee waaw sama digganteeg famille bi lépp lu xew ci famille bi daal yéen responsabilité bi yéen a koy yàttee yéen a may xibaar yéen a ci man di yóbbu ci fa famille bi noq baaw yooyu ci waa Ansaar lañ mooy waa Medina. ñoom lay tudd moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam mën naa mën ngaa wax ne gouvernement la yoroon la da ngay seetlu ba mu ci bi sallallahu alayhi wa sallam ba la jàngalee da nga ciy xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam équipe la yoroon dafa partagé woon gi kenn ku nekk rek mu am la farale kooku ñooñu tamit rafetal ci waa def ci liñ mën ba lislaam ak suñ loxo tey moo tax lu amul équipe baaxut mbooloo man kenn waaye lu waaye man man man moom dong moom dong mënul doxal dara foo équipe xam bu dëggu waaw bu waaw gëm yàlla waaw bu nangoo muñ nangoo góorgóorlu ba lu ba si fi rek day yonentu sallallahu alayhi wa sallam loolu la xamoon ko organisé woon mu ne sondun sandu النقباء نوي نقباوي سعد بن ربيع تي قصر لبوكون اك سعد بن عباده كوكو تي قصر لبوكون اك سعد بن خيسما وا كوكو تي اوسر بوكون ني نوي سعد ني نيت سعد لا نيار ني قصر لا نيت كان كي لاوسلا وا نيم نيم تي والان سار لا نبوك نيو ني سي نقباوي لا نبوكون موي سعد بن ربيع اك سعد بن عباده اك سعد بن خيسما ñoom lay wax ne soo udul ñetti sand yooyu annu xaba ñooy tànneef ya yi nga xam ne ñooy dox diggante yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ci famille bi la xasraj amoon na ñaari sand yoo xam ne li xew ci famille bi responsabilité bi ñoom la aw so am benn wam nu rawaha ak abdullah ibnu rawaha kooku ci nuqabaa yi la bokkoon ci waa xasraj la ak munzir Munzir bun Amr kooku ci waa Xasraj la ci noqabaaw yi bokkoon ak Ubaadatu Ubaadatu bun Saamit kooku ci waa Xasraj la bokkoon moom it ci noqabaaw yi la bokkoon ak Abdullahi bun Amr kooku ci waa Xasraj la bokkoon laa tahin mi bul gërëm kon ñi mu tudd ñëpp ci xasru lañ xanaa Saadu bun Xaysama moo ci bokk ci la Aws mooy Saadu bun Rabi ak Saad ibn Ubaada ak Abdullah ibn Rawaha ak Munzir waaw bun Amrin ak Ubaadatu bun Saamit ak Abdullah ibn Haram ñi ñëpp ci nuqabaa yi lañ bokkoon yonentu jiital leen sallallahu alayhi wa sallam wa Raafiun ak Raafi bun Malik kooku tamit ci Xasraj la bokkoon ci waa Xasraj la wam nu Tayhaan ak Abu Haysam bun Tayhaan kooku moom ci law su la bokkoon mooy abu abu haysam waaw malik la tuddoon fekkee ne badar mooy ibnu tayhaan abu haysam kooku ci law su la bokkoon waaw ci eh, nuqabaaw yi la bokkoon moom it ak bara bun maaruur bara ci waa xasaraj la bokkoon ak asad waaw bun zuraara asad moom it ci xasaraj la bokkoon ak useydu Useyru bun Xudayru kooku ci laws la bokkoon moo tax ne bi tasxiirin da ngay tasxiir Useyru Useydu googu bilaa wax min ci lu dul benn defee ñu ñoo doon nuq am na juróom-ñeent ñoo xam ne ci xasara lañ bokk ak ñeent ñoo xam ne ci lawsu lañ bokk asad bun zuraara saad bun rabi abdullahi bun rawaha rafi bun malik ak bara bun bun amru Ubaadatu bun Saamit ak Saadu bun Ubaada ak Munzir bun Amr ñii ñoo bokk dégg nga ci Xasraj Useydu bun Xudayr ak Saadu bun Xaysam Xaysama ak Rifaatu bun Abdul Munzir moom na waxu ko Rifaatu andi ko ak Abul Haytam bun Tayhaan tuddoon Maalik ñii ñoo bokk ci waaw Lawsu ñii ñoo doon nuqabaaw yi nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànnoon na leen ngir ñu dox diggante yonentu sallallahu alayhi wa sallam ak lu xew Medina mu ne kullu nabiin bépp yonentu lahu ñeel na ko zaayun juróom-ñaar mi nen nu jobaa ci ay tànneef wa dien fu zalika lu ful loolu li haadi ñeel na aji jubale yi ileen umum yi jëm ci xeet yi yonentu bu nekk am na juróom-ñaari tànneef yi ko wër moom la borom maqaama di junju ne Abu Zayd ma ngay jaamu yàlla boo ko gisee da ngay yaakaar ne si juróom-ñaar ñi lañ bokk mooy xutbu zaman bi am ci jamono bu nekk it am na juróom-ñaari tànneef yu ko wër ñu ne juróom-benn yonentu nag moom fukk ak ñeent la amoon mooy ñaari juróom-ñaar loolay fukk ak ñeent fukki tànneef ak xam ne ñoo doon nuja baaw yi ci jamono yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tax mu ne kullu nabiin bépp yonentu la ko zaayun juróom-ñaar men nu jaba ci tànneef wa den fo zalika ful loolu lil haadi ñeel ji ilal umami jëm ci xeet wi nga ne ko kan ak kan mooy sibtaaw ñaari sëtam ya mooy xasan ak xuseenu ci nu jabaaw yi lañ bokkoon ci jamono yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñaar ñëpp sàkka nañ leen pexe ba leen toskare ñeel na doomi àddina xamuñ mukk ku baax suma aliin topp ali ali ibn abi taalib ci nu jabaaw la bokkoon ak Jaafar mbokkam Ali bun Abi Talib Omar ibn Khattab ak Hamzatu bun Abdul Mutalib bàyyi taxa yonantu maa siddiqin ànd ak dëggalaa kon ba muy Aboubacar Siddiq bilaal yi mi ak seen bilaal ma bilaal dégg nga lu muy ñuul ñuul waa bilaal ibn Rabah ci ci nu baax yi la bokkoon yéeg na ba bokk ci nu jabaaw yi xuseyfata xuseyfatu nu yamaan ci nu jabaaw yi la bokkoon ak jundubu jundubu ibnu junaada mooy abu zarin ci nu jabaaw yi la bokkoon salmaanu farisi lu muy ñuul ñuul ci nu jabaaw yi la bokkoon su ma miqdaar topp miqdaar ibnu amr wala miqdaar ibnu aswad moom it ci nu jabaaw yi la bokkoon wa ammaarun ak ammaar ammaar ibnu yaasir ak abdullah abdullah ibnu masuud zul xadam mi kay borom ak jiitu ñii ñëpp ci nujabaaw yi lañ bokkoon mu fukk ak ñeent lañ Xasan ak Xuseenu ñaara ngoog imaam Ali ak Jaafar ak Omar muy juróom Hamsatu Abubakrin Siddiq ak Bilaal ak Xuseyfatu Jundub muy Abu Zarin muy fukk ak Salmaan ak Miqdaad waaw muy fukk ak ñaar ak Ammaar ak Abdullah ibn Mas'ud muy fukk ak ñeent ñu ñu doon nujabaaw yi ci jamono yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent nag moo doon waaw kilifa gu mag nga xam ne moom mooy jëlee ci peeg yàlla bi waaye ñu ñoo ko waroon sallallahu alayhi wa sallam di tànne fi saxaaba wa taraxatum ma ngay ñëwaat nag xawaari yoone yi xawaari yoone yi mooy ñi nga xam ne nii ñoo doon dimbale yonent yàlla muhammad wa sallam ndimbal lu sell lu raxul dara raxul benn intérêt waa bëgg ko lool mu gënal leen seen bopp ñoo ñooy xawaari yoone yi ndax nit waaw nit mën na koo dimbale fekk intérêt la ci laq su gisul intérêt boobu rek waaw wane boxam wala mu mel leneen daal waaw bu gisee intérêt boobu it ba xam ne doyal la ci lam soxlawoon wane jikkom waa daal di wane gannaaw wan wan gannaaw gu ñaaw waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom amoon nañ xawaari yoone yoo xam ne bëgguñu yonentu dara lu may ngërmaane yàlla dégg nga mooy ñii mu tudd mooy wa talxatu talxatu ngoogu ci xawaari yi ne bii la bokkoon sallallahu alayhi wa sallam zubayrun ak zubayru zubayr ibnu awaam ak saad ibnu abi waqaas ak alxulafa ñeenti xalifa yi mooy aboubacar omar ousmane ali ñii ñu bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ci xawaari yi lañ bokkoon wa hamzatu ak hamza bàyyi taxam ba wam na awfin ak abdurahman ibnu awfu saabiqun ne ami aji jot xewal ku bëri woon xewal la danañ ci ñëw wa janfaroon ak janfar janfar ci nuju baaw yi la bokkoon waaye ci xawaar yoon yi la bokkoon moo ñu doon dimbali yonent bi ndimbal lu sell wam nu masamoon ak Usmaan ibnu masamoon kazaka nak nun Abu Ubaydatum waa ibnu Jaraa ñii daal fa wa yoon ñooy waa tànne fi doon dimbale lil xuzami ñeel ku tabe ka xuzam mooy ku tabe mooy sallallahu alayhi wa sallam xawaar yi nga xam ne ñoom la yàlla boole ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu di ko dimbalee ñii la Talhat ibnu Ubaydillah ak Zubayr ibnu Awaam ak Saad ibnu Abi Waqaas Aboubacar ak Omar Ousmane Ali ak Hamza ak Abdurahman ibnu Awf ak Jaafar ak Ousmane ibnu Masuun ak Abu Ubayda ibnu Jaraa ñi ñu doon xawaari yoone yi xawaari yi mooy Nasir al Muxlis Zubayru yonentu wax na ci xam ne yonentu bu nekk am na xawaari man na sama xawaari yi mooy Zubayru kooku moom yonent seeral na ko sallallahu alayhi wa sallam Abdurahman ibn risaas la woon ci risaasu saxaaba amoon alal ju bëri waaw waaye nag alalam jooju ci bakkan bu gëm bu nangoo liggéey ci la ko amee Abdurahman ibn Awf musu nekk yalwaankat wala kuy tàllal loxoom nit naa leen dimbali ma dafa góorgóorlu ba am li xam ngeen ne ba mu gàddaayee ñëw Medina yonent daf ko boole dafa ko boole ak Saad ibn Rabi'a al-Xasraji sanga bu Xasraj gi ñu jàngoon léegi Saadu ne ko mën naa si dóog yow sama alal lépp nga jël genn wàll ga mu jël genn wàll ga ndax yonentu moo leen bokkale woon gis nga lansaar nañ tabe woon yonentu dafa jëloon muhaajir bu nekk rek aji gàddaay ju jógee mag boole ko benn waaye ci lansaar mu boole Abdurahmaan ibn Awf ak Saadu bun Rabi Saadu ne ko sama alal mën naa koo xaaj ci digg bi nga jël genn wàll ga mu jël genn wàll ga nii lañ meloon Abdurahmaan ne ko yal na yàlla barkeel sa alal ak sa njaboot wan ma rek marché ba man ngir jàngal la ni lu waree liggéey ba koo ko waree marché ba ay diw ñor ak ak xit ak sam sam na wéy jël di jaay ak jënd xeebu dara nekk ca rek muy yokk waaw muy am bénéfice di yokk liggéeyam dem ba ay ay millions yu dul jeex ci jaay jënd ci la commencé moom Abdourahman ba am alal ju jooju mbir na yëpp seere ko dem na ba nga xam ne bis jot na mbir na yëngatu yëngatu gu euh, rëy ñu ne lu xew ñu ne njëggam moo ñëw jugee Saam bañ xoolee njeg mi juróom-ñaar téeméeri gërëm yoo xam ne yëpp sëf waa ay pepp ak waa dégg nga sunguf moo fa nekk rek laa wax sallallahu alayhi am alal la woon waaye nag boo toogee ci jotaayam dangay fàtte alalam ju bëri ja ndax dana la delloo ci yàlla ci ay jooyam dana la delloo ci yàlla ci tabeem dana la delloo ci yàlla ci woon gim lay woon ne àddina du dara dana la delloo ci yàlla ci tiitam loolu mooy rôlu kilifa gu am xalal ndax xalal amee nit ñi buñ la tiimee fàttali ko yàlla yaa ngay xéwal noos mën naa def seen xol yi bëgg xalal te kilifa daal la ko war mooy mu def ci xol yi bëgg yàlla ak yonent moo tax Abdourahman ibn Awf amoon na xalal gaa mos naa wax ne wala boog dafa ànd ak gaayam mooy leen ñëw leen ñu dem kër ga gaa yi jug ba mu ñëwee ba këram mu daal di sangu moom Abdurahmaan ibn Awf daal di génn toog ñeen di ndab ya mburu maa ngi fa yàpp waa ngi fa xam nga lekk ak borom doole daal moom foo mu neex bañ taaje ñam yi rek Abdurahmaan ibn Awf daal di jooy ñu ne ko yow Abu Muhammad lu lay jooyloo mu ne Musab ibn Umayr moo ma gën rey nañ ko te benn yére rek la amoon boo xam ne buñ muuree bopp ba tànkee feeñ buñ muuree tànkee boppee feeñ Hamzatu moom a gën rey nañ ko amul lenn luñ ko sàngee lu mooy benn yére yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba muy génn àddina wala dund na ba ni muy génn àddina ci waaw mburum shahir baadu ñun suñ tiyaabe àlaxira moom lañu yàlla ñu di ko xewaloo ndax ñu baax ñi daan mel ñoon nii li la daan wax moom di jooy jooy ba mujj ba ñam moo mënatu koo lekk xam nga kooku delluwaat na xol ci yàlla borom xale li saaba yi nii lañ meloon Musaab bi mu Umayr mii danañ ci ñëw mooy ndaw li nga xam ne Makka fonk waaye waajuram dañ ko fonkoon lool ci Makka di ko toppatoo dégg nga ba mu duggee ci lislaam dafa ñàkk ban mi génn naa amu sax yére bu ko mën a sàng te waajuram mi kat mooy euh, kañ kañ fonkoon noonu doon ko toppatoo doon ko taxaw ba màkk daal di ko ñeewe mu baloo lépp ndax ànd ak yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa ngoogu saxaaba yi lii leen yàlla jaraloon Abdurahman ku bëri woon alal waaye ku tabe la woon ku wàcce woon boxam la wax na ne bu toogaan ci diggante jaamam yi doo ko xamee jaamam yi ndax day mel ni kenn ci ñoom ndax wàcce gi wàcce boxam te te kat ba mu génne àddina wurus yam fa bàyyi ay góor a ñëw téye seen ngir toj wurus wa ba seen loxo yi futu ndax bëri gi mu bëri nañ bàyyi na ci jurit junney gëlëm ak téeméeri fas ak ñetti junne yi gàtt yuy sàmm ca baqin ñeenti soxna la xamoon waaye bañ séddoowee euh, alal ja waaw ku nekk am na samaanuuna alfan ndax alal ju bëri ji ma amoon demoon na moom Abdurahmaan ibn Awf banaan su ma yëkkatoon doj sax jaay ko yaakaar naa ne dinaa ci am wurus ndax barke bu ko yàlla defaloon sallallahu alayhi kooku Abdurahmaan ibn Awf waaye nag ci xawaari yooyu la bokkoon ci ñi doon dimbale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam هذا إن أريد الإسلام واستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته